delloo baalu àq Sénégal yëpp rawatina rawatina waa ak mbërëm Sëwru Fall di Moussa Ndoye ñu bëre def sestu fair play ba tax ministre bi woo leen invité nga ñëw fii yow loolu loo ci mën a dolli en tant que kilifa waaw ñun loolu lañ bëggoon la ñu nekk aar bu ne ñu ngi ànd guddee ko ci kon kay bu ko mbëri defee daf ñu tee dañ ñu fekk dañ ciy kontaan bu baax a baax lu baax ku ko gis ku ne du mbëri yi ku ne ku ko gis ku ne war nga ci jàll neex na rafet na te lu war a am dëkk la ci toujours. ana Balla Gaye. Balla Gaye ma nga këram. ñu ne koy prélater benn combat wala. ah bu ñu gisee combat lu ñu ngi xaar rek bu ñu gisee combat bu ñuy jàllal luy jël. 2010 ñu gis Père Babou taxawu Modou Lo 2019 mu taxawu Balla Gaye diggante boobu soppeeku. waxu Modou Lo bëgguma koy wax. waxal ma waxu Balla Gaye rek Modou Lo dañu àndoon àndatuñu jeex na. sa digganteeg Balla luy secret bi. Balla. bàyyam laa àndal ba mu juddu. ñu ànd continuer mais du du du sama digganteeg Balla sama digganteeg bàyyam la. sa digganteeg bàyyam la. fi mu ne nii ah, da ngeen di xaar ko monsieur nag mu do wala. ñun xaaruñu kenn ku ñu ñu fay rek ñu bëri ko. tafaati nag Gris Bordeaux fi nag. yëpp yëpp yëpp yëpp ak yow sax buñ ñu fayee ñu bëri ko. <laughs> am père man ba wóor na bëri man. ah comme man di doon rek nañu fay lu ko jaral. Balla maa ko dàq bëri. nañu fay lu ko jaral rek. maa dàq bëri Talla Ndiaye. toujours damay dégg ngeen naan sa digganteeg Modou Lo sa digganteeg Modou Lo ba ñu tàggali léegi mosuma dégg mu wax ci man benn baat kon may dellu di wax ci Modou Lo baat loolu lu ñaaw la ci man bëgguma ko tey bëgguma ko ëllëg damaa bëgg bu ma kenn laajati sa digganteeg Modou Lo. nit dem ba ñu garga moos félicité a xam day amee rek mooy dañ koy doole suñu borom. sa morom mbër yi di wax tey ci waaw lu mel ni lii nañ ci bàyyi xel. waaw nañ ci bàyyi xel baax baax Moussa Ndiaye fu mu jëm jëndee si. waaw loolu après la waaw ku ci bëgg xam dara laaj laaj ko ci. bu ko dara de. waaw waaw waaw <laughs> lu lay may. waaw mi ngi noonu sëñ Babacar au carré jeex na moo ñu boole au carré. waaw loolu daal la yaram xam nga parce que. yàlla dafa ma dogal benn affaire. waaw xëy na ci télé laay waxee. ñi ma daan bëreel ñu ngi fi. Eh, eh, eh. ma dalee bëri ba tey la première fois ma bëreeg mbër. bëri a bëreel yëpp amu ci xam ne sax après làmb ji mën naa ne jox naa la ko wala bu amee kenn kon lii du hasard. lan moo la motivé ba nga def loolu bi mu ñëwee euh, nga nga accueillir ko dalal ko maanaam maanaam ko lu la motivé. waaw loolu moo ma war parce que gor bu nekk gor la sama noonu bu ko nangu mu gën maa gore ku ne xam ne làmb dafa métti ku ne xam ne enjeu bi ne ci làmb ak pression yeeg coow yeeg lépp nit ki daan la matagul sax une seconde nga ñu si loolu parce que man fi mu ne moom a yóbbu ah. moo la yóbbu mais Moussa père Max dama koy dégg mu ne Dóor Fayu. xanaa ëllëg ramas dal war na mën a am ak lu mbir mi rafet. loolu waaw loolu mucc lu kanam. ah <laughs> tey dañuy ñëwoon pour. comme mais invité nañu yokku cere la ramas war na yàlla baax na yàlla baax na instant lu may li ñuy wax rek. waaw euh, lii si kanam moom. yàlla na ko yàlla leeral. li sama kanam yàlla na ko yàlla leeral ci barki wéeru koor barki Serigne Babacar si buñu bokk. Mhm. salaamaaleykum mbég ci yéen <laughs> wax di wax ndaanaanu ndaanaan yi baa ngi ni <laughs> ah. maa lay fay yaa yor Moussa bu bëree sas bi nga rafet sas yooyu malaat yi dañ ci am part de responsabilité wala lu tax mbër bi waaw xam nga dafay wane rek nit ki dèjà ñu ngi ciy loxo parce que ñun itam avant xaay bi ñu wutal mbër bi ay éducateur lañu war a doon parce que sas bi muy am keroog man maa ngi ciy naaw ak xam nga supporter boo leen toppee seen yaram tàng am na yenn yoo xam ne doo parce que bokk leen ay niveau ñun avant tout ay éducateur lañ maanaam ñu wax Nguura bàyyi leen xale mu yéeg kaw dem fekk mu sa am problème boobu ci loxo la nekk et puis sportif la ñun ñu nekk ay sportif kon suñu am na loo xam ñoom ñun bu nekkee ci koo xam fay itam war na mën def ses yoo xam ne koo gis rafetlu ko dama seetlu ni ministre bi tey affaire bi daf ko daf ko daf ko daf ko frappé trop parce que dama gis sama avant la avant après lamb ji ba léegi fu mu defee discours rek wala ñu éwti ko rek balaa dara xew dina ci dana jugal Moussa Ndoye Garga mu nekk su ñu rafet xëy la Moussa mën nga ni ñàkk na mais xam nga mën nga ñàkk parce que nit honneur la boo xam ne tey wax yàlla du ñëpp ko yàw kon nag vraiment ñun ñoo ngi santaat ministre bi ah, di santaat euh, sport bi am na benn barité bu mu wax nañ ko parce que buñu bee fal na ñaaw tey mais dinañ ko wax suñu amee loo xam ne rafet na rek dañ def bu am bës vraiment ñuy gërëm itam garga parce que moom itam xale la mosuñu am xoolal problème malgré yorul ñu leen te ñun suñu njaboot lañ bokk moom it nit ku baax la waaw ñun ñoo ngi xam nga dèjà nee leen li am yombul parce que tey koo xam ne yaa ngi bëri même xamagul la xew promoteur war ne la même lu mën a xew kii dama koy tëgg loolu yàlla loolu na sant yàlla suñu borom te am mbir yu fi nekk yoo xam chaque jour ñu ngi ci média bi kii di yuuxu mënuñu am loolu ministère bi dégg nga li mu waxaat day Abdou Fall waaw ñun daal ñoo ngi ñoo ngi. mu doon tabu Thiès. ah moo daan defe naa mi ngi Thiès moom. moo daan dégg man ah moo daan dégg man comme amoon ah, na taxawal. dinaa ko waa taxawal nag man déggoon naa la yàgg ah. ah ñun déggaguñu loolu. ah man de man de seetaan naa ko ci télé keroog ñu ni moo moo kii taxawal waaye naa ko waa ñoom sama mbokk commerçant ñoo ko taxawal. waaw dégg naa ko. kontaan ci yow. waaw yàlla tax a ñu amit jërëjëf. Babacar bàyyi tooñ bi. Babacar bàyyi tooñ bàyyi tooñ Babacar. non moom. non man kay maa leen tooñ weeru koor lañ nekk yéen yéen a ngi wut tiyaaba pare gu leen di bàkkaar maa leen tooñ mais tey li ma lay laaj waaw macha allah yàgg ko ci la ko yàgg laa di ñaari mbër yu bëree kenn ki daan kenn ki nga daanu jóg fekk ka mu ka ko daan ànd ak moom félicité ko ministre bi tey jël ci loolu acte ba def li mu def yow en tant que kilifa bu nekk ci làmb di papa ji di nijaay si ni looy wax bi acte boobu Garga di sànni gis nga Babacar ginnaaw ma la nuyoo pa di nuyu taala làmb sport bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na amul leneen képp ko gis mu bëre ba pare parce que lamb sport individuel képp koo gis mu bëre ba pare adversaire am jàkkaarloo soit le vainqueur et le kenn amu ci grandeur fekk moromam kooku sportif rancunier te un sportif waroon nekk na rancunier da nga war jikko sportif parce que fair play rek lii ñoom lañ leen man man bettuma ci Garga bettuma ci Moussa Ndoye parce que ci lii laa leen xam ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bi dugg ci làmb sama donc li ñu def dañu am lu ñu jàngal xale yi ñëw parce que seen jikko lañu def parce que Garga maa ngi koy déey léegi ni ko affaire bi mënu ma père li lañ ma yare nit ku liñ lay yare foo dem loolu ngay won en biram donc lii euh, dañuy ñaax rek xale yi nga xam ne ñu ngi seen kanam ñu xam ne sport lamb sa adversaire du sa adversaire la mais du ennemi